xam nga démb source a bind na ko ni Diomaye gisante na ak président assemblée nationale Amadou Mame Diop euh, sans doute euh, dénouement dina am ci bon euh, cette crise institutionnelle entre mën nañ ko tuddee noonu nous sommes à cent jours d'absence de programme dañu bëgg tey suñu premier ministre ak suñu njiitu réew wax Sénégalais ñoom fan la ñu demee durant ces cinq bonnes années dañu bëgg ñoom jox ñu projet bi nga xam moom la ñu jaayoon d'une manière virtuelle projet boo xam kenn musu ko teg bët amul ça n'existe pas un projet fantôme mu taxaw mu wax ñu carrément ñoom fan la ñu jëmee ak a lii wax te délai sangam à délai sangam amul foofu lañ leen di xaar comprendre nga donc tey mais moom su taxawee ragal bañ dem assemblée naan su député suñu suñu delloo si suñu suñu suñu suñu lijjantu règlement intérieur bi dafay dem def ko ailleurs mais attends moom ban règlement intérieur lay wax n'oublie pas y a deux règlements intérieurs règlement intérieur de 2019 et de 2022 bu fekkee bu 2019 bi la d'accord amul les les amul les les pour le premier ministre n'est-ce pas mais bu 2022 bi am na ka sauf que bu 2022 bi ñoom dañu moom si leen installé bu foo boobu loolu si la ñuy installé ay dafe barki dem ba comme état président groupe parlementaire bu foo boobu loolu moom la defee motion de censure Ba bu foo boobu loolu moom la ñu installé barki dem ba Amadou Ba ñoom Amadou bi remplace Birame Souleye si la koy installé bu dëgg kon xanaa tey la mën a foofu et pourtant foofu bu foofu liggéey nañ si boobu léegi tey ñu ñëw ñu mu arrangé wu la ñu boobu c'est faux mun ñu si dem petit par indi ay lay teg bu fekkente ni tey ci ah si si comment dire sax dañu bëgg a dissoudre assemblée mais nañ dem mais assemblée bu noo ko dissoudre septembre mais soo ko dissoudre septembre nan ngay voté sa sa sa budget 2025 bi et budget 2025 da war voté entre le 15 ba le 15

dañ ko yóbbu assemblée voté supprimer ko moo tax loo tax local yi amul parrainage mais yow assemblée boo doon liggéey loolu soo ko tasee fan koy liggéey kon comment tu pour organiser ces élections mais attends mais soo ko tasee nan nan ngay organiser élection ou bien da ngay ou bien da ngay da ngay da ngay dindi neen nañ ko dissoudre non koy xalam da la présidente de l'assemblée su ko nekkoon billaay du ko wax suñ ko dissoudre dans ay yan condition dissolution assemblée dafa am ay conditions yoo ko war a defee actuellement nii suñ ko dissoudre le 15 suñ ko dissoudre mois de septembre bii octobre doo voté sa budget budget 2025 amaana gas yi doo ko am xam xam nga muy benn deuxièmement 90 jours nga am délai de rigueur comme organiser des élections labaat am nga beneen contrainte mooy le parrainage nan ngay def avec le comprendre nga donc bu nekk yëpp des conditions xam dafa posé wu mais lii dégg mooy Ousmane Sonko leneen lu ragal yàpp ko rek na na fi tam dem bu dee am na programme mu dem taxaw jàkkaarloo député yi présente son programme loolu mooy dëgg maître Babou Diouf euh, ci li Mamadou Sall wax ci DPG bi Ousmane Sonko délai bi lundi lay expiré xaaxaam ñëw lundi la délai bi di expiré ndax woon na fii ba le 15 bu ñu modifié règlement intérieur bi dina dem defee DPG bi ci euh, mbedd mi euh, ak benn jury boo xamante ni voilà ay experts dinañ si bokk ak ñeneen ak ñeneen moom neen Ousmane Sonko dafa ragal ñemewul un débat contradictoire euh, amoo leen projet et tout loo koy tontu. ok merci mooy li ma la wax xam nga kii bu toogee naan Ousmane Sonko ñu mënu ko un débat contradictoire Ousmane Sonko bu leen fàttali député la njëkk nekk député à l'Assemblée moom kese. un, un, un, député non aligné toog fa tenir tête la majorité tout entière ñëw di sonal ministre fay ñëw ñoom ñëpp leen di sonal nekk ci ay débat contradictoire nekk si ay débat yoo xamante ne débat constructif Ousmane Sonko ku daan ko da nga ragal danga nga ragal da nga ragal ay confrontation yooyu noonu Ousmane Sonko au moins au contraire loolu ku lu ko ñàkk-ñàkk xam xam nga xam na kii nii c'est un grand orateur tey pour mu taxaw mun na taxaw benn benn cinq heures de temps di wax te du yor sax feuille loolu may may may may bu ko yàlla may la loolu ñu xamal ko ko ñun ñëpp xam-xam avec un français soutenu non déglu ma rek waaw dama la bëgg pour mën a la man la kon ku mel noonu lan lay toog di ragal pour dem fële te dès les premiers mois de ce régime il avait demandé à tous les ministres ñu jox ko des des des lettres sectorielles ak leur feuille de pour mu préparer sa déclaration gis nga déclaration politique générale loolu fu nekk ne elle est dans de Ousmane Sonko depuis des depuis des des années. depuis des mois mais maintenant ma ma ma tegale leen nag la dafa am loo xam ne nit ki bu ko wootee da nga koy niroo ils ont dit que la la rupture et actuellement si loolu la ñuy dox yow ñoom ñëpp ñu xam ne ça c'est un faux les députés de l'Assemblée nationale moom ñoom Mamadou Lamine Diallo. Ils ont dit que le règlement intérieur qui est au niveau de, de l'Assemblée nationale ne, ne, contient pas les dispositions relatives au Premier ministre et à, sa déclaration de politique générale. Motion de censure, yop, Maintenant, yo, si l'absence de base, yo, non, on a demandé, on a fait déclaration de politique générale. Non. Non. Non. Non. Mais avec un faux là mais le faux là, mais faux bob, Amadou Bada, faux bob non, faux bob non, mais c'est un faux, si lu nekkul yoon du ma si dox. xam nga ma teg leen non attends non mon cher Ousmane Sonko c'est que la le règlement intérieur de l'Assemblée c'est un faux le président de l'Assemblée nationale reconnaître ne la reconnaître bu ko am bu ko bu mu ne ko d'accord on va dinañ ko dinañ euh, danañ ko defaraat modifier mais depuis le modifier ko Sonko ne leen je vous donne temps de le modifier ils n'ont pas modifié beneen bi nul ne peut se prévaloir sa propre turpitude yow mënoo def loo xamante ne da lay woon ne lii nii baaxul foo la ngeen fii marché le nouveau régime moom lañu woote ba pare nga xam ne lii baaxul nga ñëw di si taxaw kon bu booy dañ naan kekk ñii dañoo yàgg di tegal dañoo yàgg non déglu dañoo yàgg seet bu nawet pare seet ñii ah, seet ñii dañoo wax mais dañ naan la disposition relative au premier ministre ak moo nekk si règlement intérieur boobu lañ la wax c'est ça vous ne comprenez pas mais nekkul loolu je comprends très bien loolu ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec les salations en ce qui concerne les salations son donc donc mais quand on parle en global. les problèmes qui se posent. mais on peut utiliser quand même. waaw mais pas aujourd'hui ngeen di seet ay point point bi point bi vous avez dit le règlement intérieur. te non mais je dafa tànn mais pourquoi boobu vous n'avez pas liggéey ci fii mais attendez le pourquoi boo war a dem jàkkaarloo député mais mais instant bi moo tax yéen fay xaar non question yéen fay xaar ngeen ko tax parce que ndeysaan Sénégal n'a pas de programme te député comme programme loolu jàkkaarloo il faut lui dire qu'il soit correct quoi mon cher <laughs> il faut il faut il faut il faut être gentleman non je le suis je le suis si vous parlez moi je vous je vous laisse mais par les déroulés mais li c'est logique c'est logique mais bon non non li c'est mal quand même non de dire les choses jàkkaarloo na Sénégal di dire les choses yoo xamante ni même les Sénégalais qui t'écoutent xam nañu li ngay ni te teguwul déglu ma déglu vous avez pris temps de parole je ne t'ai jamais coupé waa raconté nga c'est ma d'accord non je parle non si parce que yéen tout ce que vous tout ce que vous ay affaire yoo xamante ne parfois ay wax sa xalaat ngeen koy jëlee di ñëw di ko mais on non non mais tout ce lu ñu leen di wax lu ñu leen di wax c'est des choses yoo xamante ne c'est des choses factuelles loo xamante dëgg la règlement intérieur nu mu war a demee ak assemblée nationale nu mu war a war a demee nag bu ngeen toogee naan Ousmane Sonko dafa ragal question yëpp Ousmane Sonko yàgg di ñëw envoyer des foules assemblée nationale mu yegg fa taxaw. ay fula ah. ay fula assemblée nationale mais je te parle de l' assemblée nationale. boo xamante ne il était assemblée minoritaire là-bas ñoom ñoom ñoom ci seen mandat de majorité ne fa ñu leen di muy écrasé majorité bi kon boo demee ba nga xamante ne yow tu es premier ministre lay am looy ragal. loolu loolu c' est pas beneen bi mais mais délai bi lundi lay jeex. est ce que est ce que peut être. non non dénouement dina ci am. xaaral ma la leen. l' article cinquante cinq l' article cinquante cinq de la constitution dit que le président euh, le premier ministre. doit faire sa déclaration de politique devant l' mais dugal ko dans un carcan de délai. mais culturellement non culturellement culturellement attends trois mois si la jurisprudence même si la si la jurisprudence des des déclarations de politique générale Abdou euh, euh, kii nii euh, Abdou Mbaye cinq mois après la def dëgg dëgg. mais moom Assane frontière. non dégg non non attendez. waaw mais déglu ma déglu ma. non non attendez. waay non non waay. non non non frontière. non déglu ma mandat yi mandat yi frontière. déglu ma Abdoul Mbaye Abdoul Mbaye cinq mois après. am euh, Boun Abdallah Dionne dépassé na trois mois ça c'est des utilisations de l'Assemblée nationale ñun gis ko fi mais pourquoi Ousmane Sonko sax mu ñëw ngeen bugg rek di di sax sooxe sooxe mel ni comme si vous avez benn benn benn benn benn benn benn benn bu ngeen yor en contre lui man fii nii fii nii deux mois moo soppi réew mi Ousmane Sonko Ousmane Sonko déglu ma rek ay deux mois trois mois loolu Ousmane Sonko si kat commencé naa soppi réew mi saa yi le le pays le pays est maintenant sur de bonnes rails loolu moo waral fu mu nekk nii les personnes yoo xam ne ils sont un peu floues ak confuses. le pays a reculé le pays a reculé il ne le pays actuellement est sur de bonnes rails. le pays a reculé te loolu xoolal. la quasi-totalité des Sénégalais sont conscients de cet état de fait loolu mooy dégg mun leen wax leneen loo xamante ne Sénégalais lañ ko déglu yàlla seede na ko ñun waxuñu ak suñu sukk bakkan mon cher ñun politique taxul ñuy ñuy am lu ñu am su politique taxul ñuy def politique mais dañoo jàpp ne suñu suñu sacerdoce ñu war seet taxaw war suñu sumi moo tax duñ si wax loo xamante ne gëmuñ ko